di siyaar bu baax a baax te di leen baalu àq sama première wax nag waaw pour Benno Bokk Yaakaar bi ah beaucoup waaw sama première wax bi nga xam ne si moom laay njëkk a wax rek mooy di jéggulu bu baax a baax tey baalu àq sëñ Galas Kaltoum miim sëñ bi maa ngi lay jéggulu bu baax a baax a baax te di la baalu àq ndax si élection yi laa gëm ne dereeti ndaw mën na ko yóbbee musiba bu amulul ndimbalul yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ba kàddu yu jub si dig sama digganteeg sëñ Gallas Kalsoum mi xam naa ne doonul lu ma war waaye sama leader bii laa am si moom cofeel ba lu muy jóge si man jëm ci si keneen rek du ma si am benn contrôle si sama bopp waaye maa ngi koy tuuti di ko jéggul bu baax a baax a baax yàlla yàlla guddal soo fan yàlla na la yàlla may ndam di wax si sones bu part réew mi ñuy xamle sëñ Gallas di la rassuré ne mboolem lépp lu daan def ci ay élection ma fari dane bun ci négliger dara fu daan dem nan fa dem képp seen mbokk moo leen daan waxal continuer di wax ak moom bu dul kenn di jëmmi sëñ Galas mu am ndam bu amee ndam nan xam ne mboolem lu président Macky Sall doon sàkku fii ci Touba jaarale na ko si sëtu sëñ Fallou bi am ko loolu ñun ñëpp dana suñu fierté la war doon képp ku di murid war ngaa mën a taxaw ci loolu pour sëñ Galas am ndam. loolu nag parti Rewmi ban ci suñ coordonnateur ba tey desulun ci dara muy coordination parti réew mi ñëpp muy sones bi ñëpp jël nañ engagement taxaw si gannaaw sunu coordonnateur ma Fëri Ndiaye fas yéenee indil ndam liste Benno Bokk Yaakaar bii nga xam ne dañuy doonoo bëgg bu suurbaa buñ ci àggee ñun ñëpp ñu maase xam ne li sécurité vote yi ndaw moo koy def ñu taxaw si centre de vote yi sécurité vote yi ban wàññi déppiyee ñu ànd fii sibile jaar Touba dugg Mbàkke ñu xam ne ndam la namoon sëñ Gallas andiloon nu ko andilaan nu ko ñu wax ñu ñëpp nañ ci taxaw ndax ndam loolu taxawar ñu ko mayoon te buñ continer si taxaw si ndam lii yàlla mën nañu ko mayaat sëñ Gallas mii la jaare woon ñu am ko te gëm nañ ne si lay war a mën a jaarewaat balaa Macky Sall génnewaat fii ci réew mi dana amaan ndam sëñ Gallas ak ko mayoon si département bi te gëm naa ne moo koy mayaat ñun ñëpp nañ si maase taxaw ndam loolu am asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu